FM. mi di sànq moo jot ci studio FM Midi Culture asalaamaaleykum. Midi tay di fukki fan ak juroom ci wéru mai atuma 2019 yamoko atté ci binu nu fallu fàllu ak tax kon eh, ndongo ya nek ci université garçon Berger ba nek ci Ndar ak seen natango yi nek fii nii eh, ci Ndakaaru ci université Cheikh Anta Diop eh, nek kon démb ak tay ay ñaan ba noppé di yeglu ngir yoon def ligéyam maître Assane Dioma Ndjay di avocat bi layol njabootu ko fallu sen gis ni dossier bi dañ ko far dugal ci ab troal kenen ku nu boomoon bis ni tay yamoo kon mu def ñaar fukki at ak juróom benn di maître Babacar Sey nekkon fi kon vice président conseil constitutionnel moom it ba fii ay mbiram leeragul Pikine tali bu bees ci banlieue bu ndakaaru la nekk ndox yu bon ya fa nekk tax na kon ba askan wa di uh, yëglu boole ko di joytu uh, ngir nguur gi dimbali leen ca reportage koor gi tey Sigicoor la utali xool kon ñi nga xam si dañuy liggéey ci métier yu ci mel ni soudeur mécanicien ba ci yeneen ak nu ñuy dundee koor gi loolee lépp dinañ ci ànd ak Angel Seck di sunu naataango ba nu fa teewal li mbokk yak yeneen i ponk buñ ci noppee dinañ ci boole tàggat yaram ak uh, li ci di xibaaru biti réew yi soogaa dugg ci waxtaan ci midi culture buñ ko faram-fàccee ba noppi day buuru Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. midi midi culture Serigne Saliou Sek mo ci fego ak Kati Ndiaye ma ngi lay nuyu. ma ngi lay fay Serigne Saliou Sek di nuyu mbokk auditeurs yi internet ci ñuy suivre. mi ngi noonu kon dañ koy tambalé ak euh, mbirum Fallou sen di étudiant bi nu rayon at ci tay ba tax na nak études ñi nga xamanteni ñom ñoo di coordination des étudiants bu euh, Djourbel, dal dina nañu amal ap euh, marche rek. Hmm? ngir rek dal di ñaan nak li nga xamanteni mom mo di justice nak def li ko war nak ci mbirum Fallou sen wa Saint-Louis itamit ñom it dal di nañu wàcc ñom étudiants yi rek ñom it te daal di ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nguur gi ngir ñu def rek yoon ci li nga xamante ne moom moo di mbiru euh, Fallou Sène Ousseynou Diop mi ngi noonu kon dinañ ci dellu waat ak Ousseynou di sunu ndaw la nu teewal foofee kon ca Saint-Louis waaye tamit ca ponk boobee la ñuy yëglu nan ñoom euh, yëglu nan nag ndax jàpp nañu ne mbir mi la nga xamante moom la ñu di faat euh, kii di Mouhamadou Fallou Sène ni ki fukki fan ak juróom ci weeru mai 2018 war nañu daal di mën a leer ba tax na nag ñoom it ñuy wax ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di nguur gi ñu daal di jóg euh, ci euh, mbir mi ni mel nag euh, ndaxte li nga xamante ni moom moo di dossier bi nag am na ay yéexintal micro trottoir bi nag moom wax ndaw moo nu ko defal

waaw Doucet Fallou Sène bi moom li ma ciy wax mooy que maanaam farataaluñ ko ndaxte gis nañ bi force politique bi mu taxawee lu ci mel ni Khalifa Sall wala Karim gis nañu maam dañ ko accéléré def le tout maanaam ba affaire bi ñu tëkk ko ci délai bu gàtt te le cas concernant Fallou Sène gis nañu manam état bi gëdd bi mu ko waroon jox joxu ko ko xamante ni nu mu gën a rek soxla nañ ko parce que tey ji nii mënuñ nangu ñu ba Bassirou Fay ñu naan kii la wala kii la ba xoolal fu mujjee ñu ray Fallou Sène la même situation mu nar répercuté wat loolu ñu ko nangoté ñu ngi jaalé famille di ko jaale étudiant yëpp xam ni tiis bi mënon na ma dal mënon na dal keneen ak keneen donc ñun tamit étudiant yi war nañu gëna xam suñu place ci société bi euh, ñu gëna nekkat ay modèle ñu nekk ay référence alors ça fait un an euh, ak Fallou Sène ba mu gaañoo depuis depuis daw ba tay dossier bi déggaatuñ ci dara euh, euh, waxaatuñ ci dara ñu ngi xaar président Macky Sall wax ci mais jusqu'à présent aussi amul benn retombée. waaw justice defe naa ne bu demee ba ñu tok 1 an ci benn affaire bo xamanteni pour nga situer responsable bi waron na yomb ñu tok 1 an mënatuñ ko kon la justice n'a plus sa raison d'être. tout le temps ñu ngi ci problème bi ci dossier bi pour que justice soit faite. parce que neexul tamit mu nek étudiant ni ñun tay mu doon xeex benn cause bu noble ba yalla jël ci bakanam depuis lors amuñu ci benn benn avancement tamit neexul vraiment peut-être nekkul dossier yëpp mooy gaawee ñu koy yaakaaree ñu ngi koy ñaanal fi mu tëdd foofu quoi son âme puisse reposer en paix mu nekkoon kon xalaatum ñenn ci étudiants yu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jëmale ko ci seen naataango bi le di Mouhamadou Fallou Sène ñu rayoon ko bés tey mu def euh, leen di layool tamit di maître Assane Dioma Ndiaye yëkkati na ci ay kàddu moom mi la nag yëkkati na ci ay kàddu di xamle rek ni dossier boobule fi mu nekk nii defuñu ci li ci war ba tax na fi mu nekk ni la sax mën na ne euh, nguur gi nag daal di fàtte dossier boobule mu doon nag loo xamante ne jàpp na ne tegu wut ci yoon ñu bàyyi daan rek ngeen teewlu maître Assane Dioma Ndiaye am xalaat aussi famille yu Fallou Sène

jàpp na ne mbir mi ki ko def tribunal de droit commun mënu ko àtte mhm. maanaam tribunal bu mel ni bu ndar mu jàpp ne tribunal militaire moo ko mën a àtte moom ñoom ñoo ko wax ci seen enquête euh, te comme benn tribunal militaire moo am Sénégal muy bu dakaar mu jébbal dossier bi procureur dakaar Dakar ba mu ko jébbalee itam man ci sam bopp yónnee naa ko lettre confirmer plentu njaboot gi mais boobaak léegi dégguñ ci dara mel na ni dossier bi daal dañu ubbi tiruwaar dugal ko ci tëjaat loolu nag moo indi xëy na li ngeen dégg ci famille bi dégg ko ci étudiants yi donc pour répondre daal ci lu gàtt mooy dossier bi daal bu doon oto bu taxaw mu ngi point mort. defuñ ci benn jéego boo xam ne war na mën a dal xel ne sax àtte dina am wala leeral dina am ci mbiru yoon. mu nekkoon kon kàddu yi maître Assane Diomo Ndiaye ci micro yu radio Futur Media kenen ku nu baafaatoon kon bés ni tey euh, maître Babacar sey maître Babacar Seye nekkoon ancien vice président du conseil constitutionnel nak mom la ñuy daal di fàttaliku ni ki ñaar fukki at ak juróom benn bi mi génnee adina ak léegi ci fateli rek mom magistrat bi lee dan dana ko daal di ni ki fukki fan ak juróom ci weerub mai atum 1993 jëmoon nak ci li nga xamante mom modi réélection euh, Abdou Diouf ci jamono. jamono jooju leen nag juróon coow lu bëri nañu daal di teewul papier wu Kumba Ba ñaar fukki at ak juróom benn ci tey ginnaaw bu ñu faatee maître Babacar Seye mbir mi mu ngi xewee woon ci fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 1993 juróom benn fan rek la woon ginnaaw bi ñu amalee élection présidentielle ya yi amoon ci 9 mai 1993 sénégalais yi toog di xaar li résultat yooyu élection waaye nag ñu mujj leen tàgge kii di maître Babacar Seye ci boori ñetti waxtu ci ngoon ci jamono ba mu jógee woon ca bureau moom mi nekkoon vice président bu conseil constitutionnel jóge ca bureau di ñibbi ca këram ga nekk ca jëppal mu ngi jëloon nag lii di corniche ouest bi ànd ak chauffeur am bi koy dawalal ci ndeyjooru maître Babacar sey ki nga xam ab brigadier chef de police bi doon wattu wàllu karangeem ñu daal di attaqué seen woto boobu ñi ko attaqué nag ab oto lañu yoroon buñ sukkandikoo ci kàdduy kii di chauffeur ba ay ballu fetel nag nee na moom lañ daal di tiire ci seen oto maître sey jëlee ci ay gaañu gaañu yu waral ñu yóbbu woon ko ca bloc opératoire bu nekk ci hôpital principal bu Ndakaaru waaye ci ak diir la fa def ci boor ñetti waxtu bi mu tegalee fanweeri simili ak juróom ci la daal di ñàkk bakkanam ci enquête bi jëm nag ci xam kan moo faat maître Babacar Seye ci enquête ñu jàppoon ci maître Abdoulaye Wade ak ñett ñu mu bokkaloon parti démocratique sénégalais ñu jàpp leen yóbbu leen kon ci boori 18 heures seen procès ñu tàmbali ko ci altine ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre ak it fan fanweeri fan ci weeru septembre ci at moomu ba léegi cour d'assises bu ndakaaru daal di condamné kii di Amadou Clédor da koy tëdd ak it Manam liggéey bu mu sañ ta bañ Assane Diop ak Pape Ibrahima Diakhaté ñoom it ñu daal di leen teg ay daan yu tollu ci fukki at ak juróom-ñett ak travaux forcés waaye ñoom ñaar ñu mujj ñi dañ leen mujjee libéré ci janvier atum 2002 juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum 2005 Nak, ab loi buñ dippé loi Ezzan ñu voté ko ci assemblée nationale bu Sénégal ngir mu daal di leen di amnistie manam yoon toppeetu leen dara di ko jaajëfal bu baax a baax Kumba Ba ñu wax ci leneen kon ak conseil économique social et environnemental bi am njiit lu yees. Aminata Touré la ñu daal di tab ngir mu uutu Aminata Tall ca bopp conseil économique social et environnemental ba tax na nag xam leen ni liggéey bi nu ko jox nag fas naa yéene daal di koy doxal ci ni mu waree Corom Mbaar Ndiaye. conseil économique social et environnemental Aminata Tall Dem Aminata Touré ak Mon mi nga fi élimaanu jawriñ Bobo boobu envoyé spécial bu président de la république Mon nak jotnawalam na lu mel di ndogal bu président Macky Sall djel ngir rek delo njukkal Aminata Touré ci liguey bi mo amal ginnaw ab mandat bu njëkk ci bop conseil économique social et environnemental Aminata Touré moom mi le dàq nañu ko juróom ñenti weer rek ginnaw biñu ko tabaté ngir li mandat ki di Aminata Touré doon militante bu jege lol ki di président Macky Sall moom mi le ko jëlee ci ay fonction yu premier ministre am ci septembre 2013 ba bàyyiwul benn yoon lépp luy ay élection yu fi jot a jaar dugal na ci loxoom moom sax bu ñu fàttalikoo moo jiite woon pôle parenage bu candidat Macky Sall ci présidentielle yi naka noonu mu yëngu woon lool ci li nga xamante ni moom moo di directoire de campagne bu candidat bu benn Bokk Yaakaar moom Aminata Touré ñëwaat nag ci yëf yi daal di jiite benn ci kuréel yi gën a mag ci réew mi conseil économique social ak environnemental am budget bu ëpp juróom benn milliard ci sunu ay koppar naka noonu ay avantages président Macky Sall itamit daal di xaatim ndogal gi nga xamante ni moom moo fiy jëlee poste premier ministre lu ni mel mi ngi ko def rek laata moo jël roppalaan ngir dem foofu le ca France. cant ak ngërëm ñeel bu baax a baax Thioro Mbar ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci radio King FM 12h12. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax ci leneen kon ak njëgul kilogramme bu anacarde bi nga xam si kon dañu fay yokk fële ca marché bu Ziguinchor. du yokk sax sëñ Saliou dañu daal di wàññi nag prix bi ba tax sax nag askan wa fay yeewoo daal di jaaxle nag ci wàññi googule di xam le ne nag fi mu nekk nii mbir moomu le nag dañu ko daal di euh, tere ngir indi ko fii rek moom moo tax nag ñu dal di koy wàññi waaye ñii di service régional bu commerce bu Ziguinchor nag xam le nañ ne loolee benn yoon ñi xaar nag carte bobu lee nak diko ko ci bitim rew momo moo tax fi ci marché sénégalais bi nag gisatuñu ko lu bari ba tax na ñu rek ñen tewlu ki nga xamantene ne di chef du service régional bu commerce bu Ziguinchor Ousmane Kati ci micro wu correspondante en Seck am ñoo de fausses informations portant interdiction d'exporter l'anacarde moom moo képp ku koy c'est parce que euh, mais aussi ñu xam du situation boo spécifique au Sénégal loolu du Sénégal kese la concerne loolu pratiquement c'est le marché mondial actuellement baisse prix anacarde fépp foo dem foo xamante ne pays producteur la ci àdduna bi ñoom aussi dañ am jafe-jafe boobu tey ma jox la pour firndeel rek soo jëlee pays sous région yi lu ci mel ni Mali prix bi tey soo seetloo moo ngi toll ci 100 francs 150 francs Sénégal nak, par contre moom manque 200 francs 350 francs le kilogramme borchon euh, donc pour wan la rek du situation au Sénégal, quest Sénégal kese le concerne tangi boobu aussi lu ko waral lenn la mooy dañ constaté ba léegi nii Djilor muy navire bi nga xamante ne moom moo war a yóbbu conteneur yi ba léegi Djilor ñëwagul mais foofu aussi maa ngi leen di rassurer parce que waxtaan nañu ak waa Kosoma Kosoma jël nañ engagement comme quoi Djilor bi dana fi nekk au plus plus tard weekend bi di ñëw incha allah. mi ngi noonu kon nekkoon euh, kàddu yi ki la di euh, Ousmane Ka nekk chef euh, de service bu régional du commerce ba nekk ca Ziguinchor doon del si kon ca njëgul anacarde bi nga xam si dañ koo daal di wàññi ñu del si fii nii ci diwaanu Ndakaaru wax ci ñiy liggéey ci mbirum gardien ak kon jafe-jafe yeen cay ñu ngi ci jaf ñu ngi ci jànkonteel ay jafe yu métti ba tax na nag ñoom ñi lee rek ñu ngi xam le ni fi mu nekk nii nit ñu bëri dañ leen di woo rek ngir ñuy garder fi nga xamante ni moom moo di seen kër wala ay entreprise waaye nag doon na loo xamante ne ne nag euh, daal di nay métti ci ñoom donte sax euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ji ay père de famille wala sax ay ndaw yu ci bëri ñu ngi ci euh, daal di dem nag ngir liggéey rek ngir war a mën a am ay koppar yoo xamante ne dinañ ko daal di mën a dundee ngir rek xam ci lu gën a bëri nanu daal di teewlu reportage bu du saw benn waxtu ci guddi weesu ba toftal ay simili mbedd mi wéet lool lu soriwul ak pharmacie ñu seen ko mu toog ci ab séesam ci kaw tëni bi mu sol mu laxasoo ab mbaajam tiim àndam di jaaru mu jot ñoo xamal ne. man Moussa Ndiaye laa tudd. moom Moussa Ndiaye yàgg lool ci méccam gardiennage boroom kër bile di liggéeyal société bu ñu ràññee lool ci réew mi di fësal rek ne ñàkk pexe moo tax mu taamu mécc mi ndax daanaka payor bi taxu ka bax parce que ni gaare ni indi wuñ mo bi pharmacie bi mo tax ñu indi mo bi léegi bu ñëwé ñu la jox ay deux ans nga ci am salaire par par ki yu am pharmacie bi fay société bi société bi fay la société bi trente cinq mille lañ lañ may fay man bu weer dee naa ci mën a fay sama luyaas té ma ngi foratu fii lo xam bu ma wàccee da ci am dépense ma ngi jabar ma ngi do balde mom ñu fekk ko ci benen bërëb di dëgg rek na tangom bi té di ñu xamalit ñak karangé bi am seen liggéey bi ñama fee benen sax li ni xam nga duñ ko mëna job ni benen sax xam nga ñàkk pexe paiement bi benn instant tamit xam nga yaa ma gën a xam waaw ñàkk peere moo tax ndax paiement bi demee noonu ko nu mu war a demee coono bi bëri na ci xam nga te tellement en même tamit risque la. bi ñuy jot a tàggoo moom Balde jot nañoo xamal ni méccam gardiennage amul benn avenir ba tax muy ñaax ndaw ñi rek ñu bañ ko taamu. Mamadou Sow ñeneen ñoo xam si ci njàqare lañ nekk moo di askan wa yeewoo ca Pikine tali bu bees ndax ndox yu bon yenuy dëkkaale ndox yi taa ca tali bu bees bu pikin sonal nañu fa yeewoo nañuy dundee nag ak ndox yu salte yooyu le métti na ñu ngi woo nguur gi rek ngir ñu defar système d'assainissement bu mu mucc ayib ngir ndox yooyu le mën faa jógee Fatou Sow moo def reportage bi tali bu tooy xepp ndox mu bon mi di ca walangaan lañ nemmeeku fii ci tali bu bees ca pikin maam Pikine Mamadou Seck këram jàkkaarloo ak tali bi ñu fekk ko mu toog yor journalam di ko nakkaarloo loolu nekk mu ñu ko dindee dina boo xam métti na trop parce que à Pikine euh, da ngay romb benn mbedd fekk ñu fóot sotti ko ci mbedd mi raxas gis sotti ko ci mbedd mi te loolu du yoon du dëgg du yoon mais nag aussi la mairie aussi am nañu am nañu problème parce que amuñu problème déggu am na kër yi xam si dañoo xat amuñu égout amul kër kër yi am na mbedd yoo xam ne xam na égout mais am na mbedd yu bari amul égout moo tax nit jigéen ñi aussi dañ koy sotti ci mbedd yi mu war a indi muy indi ay maladies yu bari bu nawet sax taliba day tooy xepp ak ndox mu bon di ay kàddu yu bàyyee ko ci Moustapha di ab chauffeur garage nekk ca wetu taliba taliba moom yaakaar naa li fi xew li fi am amul fenn moom nawoor ak nawet toujours day tooy chaque soo rombee fii tuuti rek diggante deuxième ba ba ngay romb syndicat lépp ndox la ci kaw tali lépp lépp lépp lépp day kenn mënu ci dara nit ñi wax nañ lu nekk def nañ lu nekk mais kenn kenn kenn mais loolu yëpp ni ko wolof di waxee ñàkk soluté la quoi parce que nit yi loo xam ne bëgg doo ko tuur sa biir kër mbedd bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk waroo ko fa def parce que àq la boo xoolee ni nii mu moom si biir kër fàll dem jàpp ni moom ñiy tuur ndox mu bon mi ci kaw tali bi am nañ ay rigol waaye tàmm lu bon rek moo leen jàpp. war nañ leen koo tere de ndax fi doon ñun tali bii ni jaar rawatina tali bu bees da ngay romb rek ñu tuur ndox mi tali bi tali bi yëpp yàqu na ndox mee ko yàqu. te nag boo fi jaaree daw lu bari ba doon viite ndox mi ñu lay saaga te ñoo def ndox mi ci kaw tali bi loolu moom baaxul na ci na ci gouvernement bi wax waa maire bi ñu ngi yàq tali bi daal ñàkkum set nga nekk ca tali bu bees nekk lu tëj boppu askan wa li ni mel tax bañ a fa yeewoo di soññaat gouvernement bi mu defaral leen ay rigol muy jàllale ndox mu bon mi yéen ngi déglu King FM ci 99.4. egsi nanu kon ci reportage bi nu jagleele koor gi tey si gi coor lañ ko defee. ci weeru koor gi am na ay liggéey yoo xam ne boo koy def nag day ànd ak coono dëgg mécanicien yi soudeur métallique yi wala sax menuisier yi ñu ngi daal di def lépp lu nu mën rek ngir boole liggéey bi ak koor gi donte métti na loolu ku ci nekk rek daal di nay am façongam bi nga xamante ni moom lay daal di def rek ngir daal di ci mën a génn Angèle Seck mi nu teewal ca Ziguinchor moo nu defee reportage bi. ci jamonoy koor gi tàngoor wu taar lañu nemmeeku fii ci Ziguinchor loolu tax na ba liggéey bi jafe na ci yenn métier yu ci mel ni menuisier wala soudeur Aliou moom soudeur métallique la moo ngi yore ab atelier ca sanc ba neena na boole liggéeyam ak woor yombul. yàlla moo métti waaw métti liggéey boo nekkee si naaj bi chaque jour yaa ngi sëgg di siggi waaw day métti waaw ngay génn ci biti nii yaa ma a am waaw day métti weeru moom fépp lay métti soit soo wóorul moom du métti mais soo wóoree day métti da nga dem yeneen maa da ngay bëgg a liggéey sa biir bi di métti fekk dara nekk fa xam nga ne saako su amul dara du taxaw loolu olof wax moromam bii di Boubacar Diallo yor moom it ab atelier ca Kande di dëggal coono wi ñuy daj ci koor gi. waaw waaw métti na lool parce que si naaj bi la ñuy yendu gis nga si naaj bi la ñuy yendu ngay woor ngay fëgg dafa métti moom dafa métti moom waa dëgg yàlla dafa métti mais lépp si jaam yàlla la bokk sant yàlla ndax yàlla mu ne faa mu métti nga soog am. moo tax mu boole mu ne muñ leen ma fay leen. moom moo ngi leeral ni liggéeyam sax dana xaw a sooxe bu naaj bi tàngee. waaw waaw mais xam nga rek xiif tamit bokk na ci loo xamee day wàññi ndax bu ñu wooree ni bàyyi boor deux heures gis ñu commencé sonn ñeneen ni lal basan bi xam nga di noppaleegu loolu mooy loolu mooy suñu coobere bi daal. ngir méngale liggéeyam ak koor papayaat menuisier la ca alwaar wenn pexe la am. affaire moom. bu mu méttee boo demee ba yàgg yëg sa yaram coono rek nga toog noppalu tuuti. jeexal sa yaram parfois koor gi moom parfois léeg-léeg nga xëy nga am sawar nga nga mën liggéey lu bari léeg parfois na nga xëy sa yaram tayal ci jamonoy koor gi tàngoor bi métti na yenn liggéeykat yi di lal ay pexe ngir mën a amal seen métier ngir bañ ci daj coono bu bari Angel Seck Ziguinchor King FM di ko jaajëfal bu baax a baax Angel Seck di sunu ndaw la ñu teewal kon foofee ca Ziguinchor xibaar yi kon ñu mi midi moo jot ba tegal ñaar fukki simili ak benn

beneen ba ñu daal di koy nemmeeku ca lundi ga loolee tax ba ñu bëree daal ci ñàkk seen bakkan ginnaaw loolee nag askan wa tiit ak njàkkare lañ nekkee fan yépp loolee tax sax ba euh, autorité ya fa nekk di sàkku ci askan wa ngir ñu ànd ak dal Kati Ndiaye. foofu le nag ca Soudan ab accord jëm ci wàllum transition euh, politique de trois nag am na fa. Mmh, ab accord euh, moo am rek ci diggante l'armée soudanaise ba ak it représentant yoon way manifestant yo loolee tax ba ñu daal di sàkku rek ngir ñu daal di xaatim ab accord bu yees loolee nak général Yasser Atta bu conseil militaire ba di ko xamle ba noppi yokku ci ne ñen ci ay manifestants yi sax dañoo sàkk woon ngir boobule transition mun a am ci Europe ñaari at ñenn ñi don ko sàkku ngir mu mun am ci Europe ñenti at waye finalement boobule transition Europe ñetti at lay daldi am général Atta yamu ca ma ngay xamle ni lu toll ci juróomi juróom-benn wèr yi jitu dinañ ko rek daldi jaklel ginde khatim ay accord de paix sen digënté ak it way mouvement rébellion nek ci ouest ak sud bu sud producto. waat nañ ab l'enquête jëm nag ci militant kurde yooyu li nga xamante ne faatoon nañ leen ni kii ci atub 2013 foofule ca Paris. ab l'enquête la bu nga xamante ni rek seen i famille ñoo ko sàkk woon ginnaaw ba ñu assassiné ca atum 2013 foofee ca Paris ñett ci ay militante kurde loolee nag seen famille sàkku rek ngir ñu gën a xóotal le dossier ba ba noppi gën ko leeral ci seen nopp ba noppi gën a fësal itamit ndax it service secret euh, turquie ya ci boobule ñaawteef la ñu bokk nekkoon gina loolu tam ba tey ci euh, fatali Kati Ndiaye euh, ñu fatali len ni rek euh, suspect bu njëkk ba ab turc la won doon wuyoo ci toro Omar Gune mom nak dafa daldi genn aduna gina bu mu amé ab cancer au cerveau laataa rek ñuy taxawal procès mu assise ya foofe ca Paris. ci États-Unis nak lañu koy daal di ak Washington bi nga xamante ne mi ngi woo ñi nga xamante ñom ñoo di personnel diplomatique non essentiel ngir ñu joggé fofu foofu ci ay Irak. Washington lolou la def nguurub Amérique nak dafa sàkku ci personnel diplomatique diplomatique ba ngir ñu daal di ci nu mu gën a ci ambassade bu Bagdad ak it consulat bu Ébril ci euh, contexte de tension bi ñu nekk ci fani ñu seen diggante ak Iran loolee ginnaw lolé nak Washington sax dafa rek daal di euh, ci euh, militaire yooyu ñu gëna a daal seen téway fofé ci biir golfe Bakati Ndiaye li mo fi ruusandi won xibaar yi bitim réew cib tënk. cant ak ngërëm ñeel ko bu baax baax Penda Badji doon faram-fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yi a ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Sport. Now, sports. ma nga noonu kon Penda day xajal Disa Préra mu toog ngir faram-fàcceel nu xibaaru tàggat yaram yi Disa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou. dana koy daal di tàmbali ak mercato ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Manchester United nag fi nekk nii daal nañu xamle euh, offre bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a def ci kii di Kalidou Koulibaly ak Nicolas Pepe. Nicolas Pepe ak Kalidou Koulibaly ni nga ko waxee euh, Kati noonu la ñoom na fi toll nii ràññee ràññee fa la si Italie tek ci nak ki nga xam ne mooy Nicolas Pepe Nicolas Pepe ci fàttali ab Ivoirien la moom nag ab attaquant la donc ni ñu ko waxee fi mu ne nii nag mercato bi fii ak weer dina tàmbali foofu ci Angleterre ñu ngi xaar ñaari joueurs yooyu nag parce que visé nañ leen bu baax pour mën a reconstruire li nga xam ne mooy base Manchester euh, United. match amical U20 wu Sénégal war a daje nag ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Uruguay. waaw ça fait deux jours ñu ngi fële nga xam ne mooy lot Lodz mooy dëkk bi nga xam ne moo nekk Pologne foofu la ñuy defee ay seen préparation Pologne googu sax la euh, mbir mi di amee fii ak boobu ba léegi ñu def nañu ñaare séance d' entraînement Ibrahima Niane nag ak ñi mu àndal mooy copier coéquipier mi euh, dañu war def benn match amical tey ak Uruguay euh, ci fàttali euh, groupe boobu nag muy poule A am na Tahiti am na Colombie am na waaye te am na Pologne ñoom ak Sénégal ñoom ñoo bokk groupe boobu nga xam ne ñoom mooy groupe A bu coupe coupe du monde des U20. bu ñu jógee ci football rek dañuy waxtaanee walum basket jëmele ko ci NBA Golden State nag daal dinay dominer à Portland bu dal di jël sax avantage bi ci finale yi. Mhm. Stephen Curry moom moo marqué 36 points Clay Thompson moom moo marqué 26 points lol tax Golden State jël victoire bi dem ci matcham match d'ouverture bu finale conférence ouest jàkkaarloo ma ak Portland mu dóor nak Portland 116 à 94. d'ici après ra ñu jéxalé rek euh, li nga xamanté ni moom moo di wàllum tàggat yaram ak CAN 2019 Kenya daal dinay xamle li nga xamante ne moom waaw na lu décembre 2019 sax la compétition bi équipe nationale commencé nous, euh, wane euh, ay euh, sélection ki nga Kenya la de préparation nous, 2019 mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax Dissa Preira doon nu faram-fàcceel en direct xibaaru tàggat-yaram yi ñu dugg nag ci pàcc bi nu jaglelee aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor dañ koy tàmbalee kon wax ci artiste plasticien plasticien bi la di Adama Ndoye Adama Ndoye nag ab artiste plasticien la moom mi leen nag dafay daal di defar ay tableau yoo xamante ni bind ma nag coranique la ci daal di def nag li koy inspiré rek moom moo di diine euh, l'islam ba tax na nag talbu tableau mu yooyu le nga xamante ni dafay représenté euh, Makka julli ak it euh, yeneen ba tax na reportage bi kii di Ibou Diouf moo ko daal di def buy yëngu ci wàllu peinture bo ñëwee ci béréb bi mu wekk ay tableau dafay fësal li nga xamante ne ne mooy li ko inspiré bàyyee ko ci wàllu diine jamono ji nag mu sukkandiku ci weeru koor gi ngir fësal liggéeyam. looloo tax à chaque fois du may dugg si affaire art c'est surtout pour remercier pour glorifier ah wàllu diine. a bu may def euh, yeneen bi si boppam salaasalaam. Euh, influencé na si si naka si ay waxam si ay dénk yu mu bàyyi. islam ak weeru koor gi mu sukkandiku ci xew-xew bu sell bi ngir jàllale ay message loo xamante ne rek ci wàllu islaam la bokk na ci yooyee juróomu ponk yi. li tax ma gën ko valoriser. mooy pour xamal nit yi da que islam dafa am ay chart et chart yooyu mënoo si dugg ah lu dul ngay matal cinq ponk yi si yenn yi doo ko mënee. mais comme ñaari ponk yi si njëkk muy shahadata bi lay dugal ci islam ak julli loolu mënu la wacc fekk nga ngi dund donc mëno tu wala ngay jaamu keneen ku dul yalla euh mëno tamit baye julli bi. artiste peintre bi ñu né ku polyvalent la art bi muy def dina ko may mu jagleel ligéyam ñeneen ño xamné ne sax bokkuñu ak mom diiné man nak euh, du ma nee du jaay sama œuvre ku dul musulman parce que sama objectif moy à partir sama œuvre yi nit gis ko. am si am si yëg-yëg ba keroog amaana yàlla soppi ko si lool Adama Ndoye ne nag li muy def nii jàngu ko ci benn lekkool loolu nag terewul mu am loo xam peinture bu ko gën a neex la loolu ñuy duppee peinture à air bés bu nekk mu ngi def kem kàttanam xool ni ñu koy liggéeyee ngir liggéeyam gën a mucc ayib. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Ibou Diouf ñu jàll ci ganu médiculture Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñu nar a waxtaanee kon euh, lu jëm ci festival Salam bi. Abdou Aziz Mbaye nekk chargé de communication pour festival Salam moom mooy ganu Midi Culture bu tey Kumba balaa ma loonal waxtaan. mbokk yi nga xamante ne yéen a ngi King FM 99.4 tey jii nag euh, Midi Culture mu ngi dalal ki nga xam ne moom Abdou Aziz Mbaye moom nag moom mooy coordonnateur festival Salam ñu ngi lay nuyu Abdou Aziz. maa ngi lay fay di am di jàkkaarloog yow. naka ngeen di waajale li nga xam ne moom mooy festival salaam 2019. mat na ñaari weer ci ginnaaw ñu ngi doon waxtaan ak ci biiru festival salaam di ci daje ak ki nga xam mooy promoteur bi muy le président directeur général monsieur Youssou ci sélection artistes yi waaye déterminer dëkk yi nga xam ci lañ koy défé ak li nga xam ne lu bees lu luñ ci wara duggal ci fofu lañ tollu depuis 2 mois ñi ngi ci. Euh, festival bi gis nañ ni askan wi dañ koy xaar chaque année ndax daf leen di wéttali di leen bungé ci li nga xam ne moom mooy ramadan bi yépp ndax mën nga ñu wax tay li mu ko artistes yi nga xamanté ni ay waykat lañ ci walu li nga xam ne moom mooy ay tiant ak ay zik rek yu ne mel. wa xam nga euh, festival bi dafa bokk maintenant ci agenda culturel li tubab di wax agenda culturel moy xew-xew boo xam bu at ma ñëwé mu dellu ci waat ñu ngi ciy xalaat boobu ba tey waaye xam ngeen ban ko dalé dor ba ngeen at mu jot artiste de New York bu démé ci benn région artiste de New York motax tax fi ñu toll defe passé nañu wulu mat téeméeri artiste ci walu critère de sélection yi manam est-ce que amna tanef ci artiste yi nga xam ñom ngeen di jël. ah lo bëgg mu baax foog nga wut euh, lu bees lu ci am té lo gis dafa am sélection loolu tubaab di wax choix bo defee choix dina am ño bayyi donc am ño xamni min nañ leen ci festival bi yag nañ ci amna ño xamni du ñoon rek ño fi nek dañ am ñeneen ñu bees parce que masse day dabanté dina am ay xalé yo xamni ne nañu joggé ci daara yi wala ñu jóge ci kër diine yi manaway ñu découvrir len tout au long de l'année di len gis ci soirée yi di len gis di len top ba taxna ñoñu dañ ci yok ñi nga xam ñoo fi nekkoon pour festival bi gëna neex. Mm-hmm. waaye da ngeen fas def ko ci yenen gox yo xamne ne bokkul ak Ndakaaru. festival bi dafa waroon wër parce que festival doon dem ba Sénégal gep ko mom région bu nekk nan kañ lañu am festival léegi xam nga lo xamni am magagul bokoy jël budé ndaw dang koy tété muy dox ndànk ba ngay mëna a ci lolu moo tax ren inshallah allah dina dem kaolax te daaw fan yi dem at yi demoon woon Kaolack jéggi woon nañ fi dem ay ci banlieue bi dem nañ parcelle dem nañ géej waaye mais ren dañuy dem Pikine seeti leen bu déwénee xëy ñu jëm boori la grande banlieue. particularité wu atum ren bi ba lan lay doon. particularité atum ren bi li ci am solo moo di ren dañu jël ay xaleel am na ay xale yu ndaw yu nekk ci kuréel yi jàng alxuraan mokkal ay xasaay mokal ay abyaat yu mag ñi xale yooyu la ñu jël ren boole leen ci. Euh, suñu invité d'honneur bi. Sonatel Cheikh Sultan. Mohamed Al-Kassami, émir de bu Émirats arabes unis. mën nañu xaar festival Salam Dem bay de dëkk yu bokkul ak Sénégal. Mauritanie ñëw nañ Turquie ñëw fi gis ren euh, Gambie te buñ aussi Kaolack la communauté nigériane ba fa nekk ñu parce que loolu bokk na ci intégration xam nga euh, euh, le marabout de l'intégration boori Cameroun boori Ghana boori yooyu yëpp daf benee yooyu yëpp dafa am ay taalibe ñooñu nag bu ñu leen indee ñu ñëw dañuy jàng si foofu Sénégal la ñuy jàngee fi la ñuy jàngee woy yi ñooñu communauté de boobu ren dañ leen di woole ñu mel ni waa Nigéria ñoo ñëw. Abdou Aziz mbay looy tàggoo. mais kontaan di woo ñëpp ñu ñëw di woo nit ñi ci jox festival bi dayoom dayoom mooy booy ñëw ci festival nga am yére yu yiw réponse bi nga xam ni Sénégal daf ko yónnee ci àddina bi pour wën leen ni tarixa yi fi ñu dëkkandoo nii danoo nekk benn jàppaloo nekk benn. merci beaucoup kon mu nekkoon na Hadj Abdoul Aziz mbay nga xam ne moom mooy coordonnateur festival Salam moo nekkoon tey ganu Midi Culture yéen leen di jaajëfal ci teewlu bi. ngërëm ñeel na la tamit bu baax a baax uh, Kumba Ba doon waxtaane kon festival uh, Salam ak ganu ko midi culture ñu jeexale kon kat yi ak uh, kilifa ak lu bees li mu génnee génnee na wéy bu bees bu mu daal di dippee ak xarnu bi génnee ko rek ci weeru koor gi leen ñu bàyyi leen rek ngeen teewlu tuuti ci woy wi سلمت من الأخطاء تغنى ما تجالي بالوباء بلاد lam yaku murtaja sëriñ bi ñaan faqir dafay nangu dagaan nangul nu lépp lu la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bee mu nekkoon kon euh, xarnu bi bu euh, kilifa bu kër gi mu mel ni foofee la ni yam ak yéen ci midi culture cant ak ngërëm ñeel la bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay gërëm bu baax euh, Serigne Sallou Seck di gërëm mbokk auditeurs yi internet yi ñu doon suivre ci suba ba tey di leen jox dig daje suba incha allah ci midi culture. di gërëm bu baax a baax tamit Daouda Gueye mi nekkoon ci xarale gi Serigne Sallou Seck nekkoon ci kàddu gi production Kaderlo digital ba Yacine Pouy moo fa fare woon réalisation di sa préra lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci midi culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg Mythiculture